mbokk yi seetaan diaspora news tv ñu ngi leen di uh, ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay uh, ni ñu koy uh, defee saay su nekk rek fas yéene teew fii ngir waxtaan ak yéen tey nag boo leen gisee cadre bi ñu nekk xam ni l'équipe de diaspora s'est déplacée dugg ci biir marché bi ngir waxtaan ak ñi nga xamante ne ni ñoo fi liggéeyee ñi fi ñëw di dugg si par rapport ak dund gu cher gi nga xamante ne ni moom la ñu bëri ci askan wi di faral di jàmbat daañu dugg ci seen biir nag daal di leen dékk suñu micro laaj leen naka lañu ñu koy dundee ñoom en tant que ay père ak ay meex de famille ñu wax ñu lan moo ci seen gis-gis seen xalaat après ñu dellu si waat ah, waaw man maam Diom laa tudd waaw jaay fii marché Grand Yoff dëgg la dund bi metti na fan yi waaye nag du tey rek la metti xëy na bu bu ñuy wax changement bu ñu toogee ba ci kanam tuuti yàlla dina defar lépp comme li ñuy dunde du lépp fii lay jóge mënu la tëb rek sance waaye xëy na bu yàlla bu ñu fi yàlla bàyyee ñu yàgg tuuti changement dina am lii ñuy wax ci géej gi dëgg la jën amul waaye xëy na bu contrat yi wàññeekoo bu jën wi ñëwee ci kanam dina tane bu soobee yàlla mënu la tëb rek baax mais il faut bu ñu xaaree ba ci kanam yàlla dina soppi jamono waa waaw waaw seer na seer na moom waaye ñu ngi sant yàlla rek ñu ngi sant yàlla boo xëyee boo yàlla mayee wër nga mun a xëy jóg wuti am loo yóbbul say njaboot yàlla may la foo dugg bu dee amoo foo dugg yàlla may la nga fay li ngay fi nga dëkk nga di ko fay sant yàlla xëy na bu ci kanam tuuti changement dina am man foofu laay gisee waaw waaw changement daal xëy na salaamaaleykum maa ngi lay fay man Fama tudd. waaw. ah dund bi seer na bagage yi seer na lépp seer na wax dëgg yàlla jën sax mënuñu koo am jën danga nga yore sa doo gis jën bu baax boo jën lépp a seer jën yi kenn mënu kaa jënd da ngay fa sa xaalis jënd jën boo ko jaayee dara doo ko ci am waaw dara doo ko ci am dund bi seer na lépp seer na. waaw fi mu daal affaire bi metti na daal neexagul de affaire bi dafa métti ñu ngi ci métti bu metti wax dëgg yàlla. ceeb ak dëwlin ceeb ak dëwlin lépp a seer gisuma lu seeru dañoo sonn daal ñun daal sonn nañu ku ñu dimbali nag ñu jël sonn nañu torop dund bi seer na lépp seer na amul dara lu yomb amul dara lu yomb. jën yi ñuy jaay da ngay jaay ba sonn doo gis dërëm parce que fañ lañ koy jënd moo cher lañ ñu koy jaay moo cher wax dëgg yàlla lépp seer na ku ñu jàppale daal moom baax na ku ñu jàppale mu baax parce que dund bi daal sonn nañu cher na waaw. ah yi ñoo ngi leen di ñaan ñun amuñu lu suñu njaboot waaw ñoo ngi leen di ñaan suñu njaboot yi am liggéey. ak dund bi ñu wàññil ñu ko waa ak suñu njaboot yi am liggéey tax xale yaa ngi taxawaalu kenn liggéeyul ndax xale yaa ngi taxawaalu kenn liggéeyul waaw taxawaalu bi bari na xale yi kenn liggéeyul boo gisee agresseurs yi bari ci dëkk bi kenn liggéeyul amoo loo liggéey nooy def il faut nga def agresseur waa xale yi xale yaa ngi taxawaalu kenn liggéeyul Fat Ba Fatoumata Ba waaw waaw seer na metti na lek lekk talatuñu nan dañoo daw daw daw bay bëgg a dee ceeb dafa seer dawluñ ser jeun amul te ñun ci marché rek dañu yaakaar dépasse amuñu kenn kuñ jox ñoo jox suñ bop jox suñu doom ñoy fay école fay loas fay ndox fay courant ñoo ngi bëgg a dee te suñu heure dee jotul wa léegi nag buñ ñu dimbalé ngir yalla yonent ba ñu yombal ko suñ dund dina neex bu yombul nekk moom dañuy gën a métti rek day gën a métti waaw. añ rek la ñuy togg bàyyi reer ku ci xëy sa doom doo am sax loo ko jox mu reer xanaa boo ko joxee añ bu xëyee nga jox ko mu ndékki reer moom dañuy tëdd noonu rek bàyyi waaw. ci autorité yi xanaa ñu dimbale ngir yàlla wàññi dund gi wàññi dawlin pes ñu dem ci ñu am jamm am salam ñom ñam jamm ñam salam. ndax metti na lol lol jaay kat bo gis dafa daw daw bay bëgg dé man ma nga dama daw ba wow ko ndax dund gu sé wa merci beaucoup amiin heure quatre heures du matin deux heures la ñuy ci marché bi balaa nga am dépassé da ngay sonn nañu dimbale ngir yàlla autorité nañu sara ngir yàlla yonan tabar dee nañu damm nañu man tere damaa bëgg a sama asalaamaaleykum maa ngi nuyoo di sant di gërëm ñëpp dund bu seer bi nii la mën a demee ndax dañoo fal président bu bees ba ñu falee président bu bees dañuy toog nag dégloo déglu àddina ma réew mi li fi yàq yëpp dañ ko war a defar te ñu dara dañuy door a installation bu bees la il faut que ñu toog déglu leen nag sama jàmbaar yi ñëw installé dëkk bi xool ni mu demee balee nañu barki démb léegi dañoo fas yéene nag liggéey Sénégal lépp lu leen digoon dañu ànd yore teggi na toog déglu ak sëñ Babacar waaw sant rek ginnaaw Sénégal ñun béyu ñu dara dañuy jëggaan yi jënd fa ñuy jëggaan yi xeex fa am ah looloo tax dund bi seer waaye bu ñu yàlla suturaalee ñu joxe jiwu yi dem bay suñu bayee toog xaar yàlla yàlla ñëw xéewalam su boobaa dootu ñu nam dara bay jëggaan yi dara muñ rek ak toog dal dund gi léegi mu jeex ci kàttanu yàlla ak mbaaxam waaw borom réew mi wax sonkoy jamaay jamaay ay sonk dund ñoo ngi delloo ziar ba jàmm ngeenam Assane Sarr. waaw ñoo ngi nuyu waa mi yëpp di leen ziar di leen xamal ne euh, dund bi moom gaa seer na li nit ñi dundee présentement seer na loo surtout euh, li nga xamante ni moom la njaboot yi gën soxla muy jën ak ceeb bi ak diwlin bi ku ne xam na ne yooyu seer na ak saabu beeg suukar bi loolu nag eh, li ñu xalaat ne war na war nañ ko def pour mu wàññeeku mooy ñu jéem a waxtaan ak commerçant yi état bi na waxtaan ak commerçant yi ñu xool lan lañ mën a wàññi ñu wàññi ko te du gaañ état bi du gaañ aussi eh, commerçant yi loolu daal laa yaakaar ne peut-être buñ ko defee toog waxtaan dinañu am solution ci lu mu mën a doon. parce que problème yi moom am na waaye pour ñu résoudre ko faaw ñu toog waxtaan toog waxtaan rek mooy mooy li nga xam ne mooy li koy résoudre. Hmm. ah mais niñ koy dundee rek parce que ku ne xam na ne euh, euh, njaboot yi ñoom gaa képp kuy njaboot rek xam nga ne euh, bu fekkee am ngay responsabilité charge nag ci sa kaw loolu dafay metti waye li la ci genn moy liggey soy liggey yamale sa bëgg-bëgg yamale li nga xamanteni mom ngay am nga mengale ko ni ngay dundé do am ben problème mais bu fekké nan da ngay da ngay am 100 franc ba paye di bëgg a 1000 francs par jour vraiment fay metti waaw loolu moo ci ak y a pas de problème. sa tour ak sa sant. Géwel Mbaye sant Samb. Géwel Mbaye Samb. Ah, waaw Géwel euh, ñu gis ni actuellement jamono bi dafa metti waaw tubaar fakalla macha allah instant bi moom jigéen ñi ñoo gën a sonn sax góor ñi ndax góor ñi buñ xëyee li nu am lan lay jox buñ la ko joxee yow ko jigéen ki yaay dang dangi wut loo ci doole boole koog jàng xale yi boole koog fay luyaas bi fay ndox fay courant dëkk bi moom metti na dëkk bi metti na bagage yi cher na. instant bi moom sutura yàlla rek la ñuy dunde dañuy ñaan yàlla nag ñoom ñu dimbale nu jàppale wàññil ñu dund ki ndax dëkk bi metti na. waaw sonn rek sonn rek nag sonn rek lañ koy dunde ndax instant bii moom bu dee dëgg rek mooy dëgg jigéen ku nekk borom kër nekk ci kër sonn nga taloo lekk ba suur taloo naan ba mànde dan daan dem sax di togg añ di togg reer léegi nag boo toggee añ doo togg reer da ngay bàyyi ba ngoon nga jënd sa fonde wala nga jënd cere jox xale yi ñu lekk yow mii mag mi nga tëdd ndax dëkk bu metti ceeb bi seer na diwlin bi seer na lépp seer na te ñun bu diwlin bi wàññeekoo ceeb bi wàññeeku suukar si wàññeeku bu boobaa dina xaw a tane ci ñun jigéen ñi waaye loolu lépp a seer fi mu ne nii danoo sonn ñun jigéen ñi daw nan ba bëgg dee ñun jigéen ñi talu lekk talu ñoo sonn nan loof nan ah xanaa na kilifa yi nag ñu jug nag dimbale nu ñun jigéen ñi ndax buñ ne ñun bu ñoom buñ jugul ñun sonn nan te ba mettee ñun ñoo leen fi tegoon ñun ñoo leen faloon nan nu dimbale wàññil ñu sunu dund gi ndax danoo amoon ci ñoom yaakaar moo tax ñu teg leen fi kon nag nan nu dimbale wàññil ñu sunu dund gi lu nu am mën a bokk ak sunu njaboot gi waa jaajëf yal na leen yàlla fay yéen it yal na leen yàlla defal jàmm fay leen seen kii bi dem ca kaw ca kanam ci barke yonent bi merci beaucoup. maa lay fay maa ngi si jàmm bu baax a baax maa ngi dëkk Yoff Tongoor Ami Dieng Ami Dieng Sylla laa tudd ñu ngi jaay fii Massa Grand Yoff njaay mi naqari na. dund bi metti na dañ na won bu Sonko faloo di dina wañe waan fum mu nekk nii affaire met, dafa gëna metti dafa gëna metti fum nek ni dara baxaw dañ na won dañuy wañi bagage wàññiwunu dara day gëna ser day gëna ser ñun nak nu ngi tok fi daal di xaar yàlla dañuy toog a tok ba midi wala 2 heures nu laali dem jibbi nu dara son na nan na dañu jënd na ba nu rotu noox nit son na nan torop nu dimbali daal li nu waxoon ba ñëpp a jàppale ka nan ka def ñun loolu rek nu wàññi dunde bi wàññi leen da naan géej gi am na jën ku dugg fii ne géej gi am na jën te gisaguñu benn jën benn jën gisaguñu ko li nu am rek la nuy jaay nu ngi toog di xaar yàlla gis na gis na taabal yi suba ba tey nu ngi toog jaay nu dara bu deux heures jotee nu laal li dem ñibbi galaasa dem ñibbi loolu rek lan leen laa amoon si li ma na wax sonn nañ toom ñun waa marché Grand Yoff dañuy toog ba trois dem ñibbi. bun amoon daal lu nu jàppale nu gën noo jàppale marché bi gën a gën a lii marché mbedd mi tam foo tourné ñun daa ngi lal seen taabal di jaay ñun daa sonn na nanu daal di dimbali. Ah, a metti na ren ñun de fu mu nekk nii buñ buñ wàññi woon rek mu baax maa ngi sama borom kër waande buñ wàññi woon rek mu baax wàññiwoonu dara na dara wàññiwunu ko dafa gën a yokk dafa gën a yokk wàññiwunu dara sonn nan waaw waaw jërëjëf waaw uyul mi mi ngi noonu ngeen gunge woon ñu ayca mi ngi noonu ngeen euh, gisoon ñu euh, rek duggoon na ci biir euh, marché bi dekk suñu micro ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo fi nekk ñii di ay borom kër ñii di ay jaaykat ñeneen ñi ñëw fi rek ngir ndugg doon leen waxtaan ak ñoom ci dund gu cher gi gis ngeen li nga xamante ne ni moom la ñu wax comme ay réaction ñii jàpp nañu ni dund gi dafa cher et nguur gi dafa war a teg ay jéego ngir ñu wàññi ko des gis ni nguur gi fi nekk nguur gu yees la donc war nañ leen mën a may tuuti li ñuy woowee temps de grâce le temps que ñu amal liggéey yi nga xamante ne ni moom moo ca war ngir rek mën a wàññi njëg li mbokk yi lii la ñu leen indiwloon ci reportage doon leen ko dégtal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax dig daje je ay bis yii di ñëw pour beneen sujet de reportage jaa ngeen jëf